ay ci mu nga ko mbokk tey am na ñu mbégte bu baax a baax dara ci plateau matinal Allô Sénégal ki nga xamante ni moo di Mouhamed Cissé moom Mouhamed Cissé nag euh, nekk responsable réew mi fële ca Touba euh, Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la ziyaar am na nañu mbégte dalal la ci plateau bi. merci beaucoup soxna Aïcha maa ngi lay fay euh, di rafetlu suñu jataay di ñaan yàlla lu ñu fuy wax rek mu doon njariñu sénégalais yi. Mm-hmm. di nuyu suma frères yi ma fi fekk ñu toog. leen di nuyu ñëpp Pape Ousmane monsieur Camara et tout ça dalal ak jàmm Mouhamed Cissé lenn li may njëkk euh, leeral rek mooy euh, le chargé de com euh, du parti Rewmi muy maane xamal nañu ni que toogee woo fi ci turu parti bi. ci sa coobare bopp nga fi toogee ñu fa yéene sekk ak yow nag waxtaan wu amam solo euh, diggante bàkki démb samedi bi ngeen amalee li nga xamante ni euh, moo di seen séminaire euh, démb ci dimanche dañu jot ab xibaar bu ñuy xamal ni que dañ la daal di génnee ci li nga xamante ni moo di secrétariat national bi lan moo xew ci diggante boobu ba ñu war la mën a génne ci secrétariat national bi. ah bon kon génne nañ may secrétariat national bi. yëgoo ko woon. ah mais merci beaucoup bon yëgu ko ma yëgeen naa ko ci réseaux sociaux yi mais ki ma ko war a yëgal moom. waxagu ci ak man. kan nga jàpp ni moo la ko war a yëgal. ki ma fa dugaloon yëgal ma ko muy Idrissa Seck man moo ma ko dugaloon moo ma ko yëgaloon nit kon su ma ko déggee feneen damay jàpp ne ay gone yu wax la waaye moom it saa bu ma ko yëgalee. Mm. ma sant ko ci gërëm ko ci ci xam ni <laughs> loolu moom la ko suñu waa parti may mu mën ko def waaye nag. quant à parti réew mi moom maay biir parti réew mi ba léegi. Mhm. benn parti laa mas a bokk moom laa xam mooy parti réew mi. Mhm. ci it euh, foofu laa fas yéene jeexal suma carrière politique. Mhm. waaye kuy def doom joo jur doom joo am rey ko yaakaaruma nga bari ay doom wala boo bis boo dee yow sa bopp doom ku la doon. waa non <laughs> jant doom waaw ak nuñ ko mën di tudde rek boo jàppee ni dangaa doon bàyyi boo xamante nii kenn du la wax dëgg dafay wane ni rek ñi ñu bëgg jiite ñun suba fi ñu toll ci dayo ko man li ma jàpp ay camarades de bu ñu àndee mhm. war nañ mën a waxante dëgg waaye bu fekkente ni yow bu ñu la waxee dëgg rek nga daal di mer daal di dàq kooku ñi fi ñi mu dàq ñi mu tàqalikool bari na de. ak fa nga ko waxee itam. Ah. waaw waxin bi moom sans dépend li situation bi laaj rek. déjà déjà dama bëgg mu leer. xóotum biir kër wax olof la rek. ban dëgg ban dëgg nga war a mën a wax ba tax ñoom ñu ñu réagir de la sorte. ah xanaa dajale ay nit ba ñu ñëw toog nga ni séminaire ngay woote séminaire boo xam ne amul ordre du jour. moom Idrissa Seck. moom Idrissa sa d'accord ñëw la def. woote séminaire ñun secrétariat national bi yëpp toog ak coordinateur départementaux yëpp mu ñëw presque mën naa wax nuyul kenn dem droit au bii wax lu mu bëgg a wax jóg ne voilà ñu looyee séance yi dem <laughs> jëli petit danse dem loolu loo koy bokkul ci respect. quelqu'un comme ça est-ce noonu la fa demee keneen ku la wax leneen lu dul loolu daal daa wax lu ko neex waaye lii ma la wax. noonu la demee ca ñoom suma frère de parti yooyu ñoom xam nañ ma ni man du ma waxantu du ma wax lu dul dëgg lu ma wax lu ma gëmul tamit. léegi yow loo wax moo war a sensé nu muy doxalee. Hmm. voilà. lan nga doon xaar ci boobule séminaire. séminaire boobu li ma ci doon xaar lu ci njëkk bala ñuy wax ñun ci lu ñu jëm. Hmm. dañuy wax ci lu ñu paase. def bilan defar parti bi. manquement yi am bari na trop la preuve moom ñun la 5 novembre daje woon nañ mu am lu mu santaane muy recensement yooyu mu waxoon soo leen dégloo waxtaan bi moo ko waxalaat boppam ci ndaje mi ñu toog xam le ni li mu santoon responsable yi. kenn kenn defu ci dara lu dul ñaari nit. Mm-hmm. lu toll ni parti nag bëgg laaj réew moo xam ni ñoo ngi ci 17 millions d' habitants di jàpp 18 ñaari nit li nga santaane ñaara ko ci def. kooku boo yaakaaree ni yow li yoon bi ngay dox baax na sa bopp ngay nax naxoo kenn. benn. benn nekk noonu. Mm. leneen li ci topp recensement boobu am na fu mu jëm xam nga nag ñun moom ndaanaan la de mais ñun ay njaacaar lay doo leen ay como. non du ñu ay como. parce que moo ñu tàggat ci loolu recensement boobu. ci li mu jëm jërul mu du ci sori parce que duñ ci dem ak moom. lan nga njort ni fa la jëm ci parrainage la jëm ci nit da ngay honnête ci sa démarche quoi dañu nekk ci benn coalition man li ma jàpp mooy lépp luy xew coalition bi ñoo ko war a définir waxtaane ko mais du yow yaay tëb rek jël sa yoonu bopp génn tranche bi di def lu la neex. dèjà moom li mu may rapproché bari dàq na ma ci secrétaire euh, national bi kon waa benn bokk yaakaar dañ ko waroon dàq de parce que yoon woowu la nekk. kon yow loo bëgg Idrissa Seck topp ci ginnaaw Macky Sall rek. non pas topp ci ginnaaw Macky Sall moom moo ne moom Idrissa Seck moo waxal hmm. moom day bëgg ma nangul ko ko. xanaa moom yorul parti rek war a mën a dem briguer le mandat loolu am na mais <laughs> bu doon loolu rek la kay moom bu mu dem di dugg ci coalition bi na toog xaar. ah gis nañ yeewi askan bi tamit ku nekk jël na sa yoonu bopp. non yeewi askan wi du pouvoir taxul nga war mhm. a yeewi askan wi yeewi askan wi du pouvoir. yeewi askan wi wax dëgg yàlla man sax bon vraiment c'est un peu mal placé pour wax ci ñoom. mais yeewi askan wi. Mhm. opposition lañ nekk ñoom loolu ñu def am nañ ci droit. Mhm. parce que seeni sart la ñu tëraloon mooy bu ñu jeexalee ci législatif yi que dañuy génn ko ne dem demal sa yoonu bopp. ñu ngi ci seen ay charte yaakaar tel na te le cas. ok d'accord. xam nga bu ñu nee Idrissa Seck parlant de lui man dama ko damay laa dama koy laaj lan moo tax c'est seulement en ce moom lay soog a gis na Idrissa Seck incohérence am pour quoi léegi la koy soog a xam nga bu ñu nee mburu ak soow sa xel day dem si poñse poñse soo ko déggee mburu la bu fanaal ndax mburu bu bees kenn du ko poñse léegi Euh, mburu bu fanaan bi ba mu demee ba doon bogo bogo fas yéene wutali soow bu commencé forox ba mu ba mu décidé loolu <coughs> ba mu ko décidé tàgguwu yaa ngi dégg parce que man Euh, le jour bi mu koy wax la le matin mm. dix heures maa ngi woo seen seen chargé de formation du parti. parce que ma dëggoon rumeur bi mu ne ma jeune ne pas au courant après midi bi sa Seck dem rejoindre euh, coalition donc yëgalu leen ñu bëri ci ñoom yëguñ ko woon sa Seck a toujours agi comme ça mooy buum mooy buumi te ba léegi moom daf ci nangoon lu tax nga ñëw ba tey nag hmm. nga soog a gis ne na muy doxalee du noonu alors que am na ñu ko teel a gis ba dem dañ dem nañ seen yoon par contre euh, foofu nga wax nag dinaa la ci d'accord parce que man yëgoon naa ko man. ok xam nga man nekkuma quelqu'un bu nga xam dama naan la dégg naa wala yaakaar naa. si Déthié Fall luy même ki m'a appelé jeudi guddi gàmmu. Mhm. ma solu bay jël suma téléphone pour war a dem ci gàmmu bi. Mhm. maa ngi woon Touba pour dem Diourbel passé fa gàmmu bi te Déthié Fall ki moom ma woo wax ma ko. Mhm. vendredi samedi la ñu doo a dugg ci gouvernement bi. parce que yaakaaroon nañ ni man su ma ko yëgee dinaa am beneen taxawaay bu ma taxawee. parce que xam nañ man ban façon nit la ci biir wax ji sax dafa doon wër-wërloo maa xam fi mu bëgg a dem ma ne ko mais président Déthié yow li nga bëgg a wax wax ma ko amul problème bu fekkente ni dugg ci gouvernement bi c'est pas grave man lu ci parti bi décidé naa ko awma ci problème moo la ko yëgal mais du ndeyu mbili ci. waaw non mais attends Déthié moo nekkoon vice président bari na lu nit daan yëg ci parti bi Déthié moo la ko yëgal période boobu mënoon wax ni mënoon nañu wax ni sax Déthié moo yoroon parti bi di ko kon lu ma Déthié wax rek xam naa ne lii am la. et puis surtout Déthié Fall que je connais ca li ma wax it dèjà loolu moo am ca samedi bi la dugg ci gouvernement bi. ok kon xam nga man boo am na lu mu ci yëg ca boobu ñëpp comme dañ ma doon xaar ni man maa war a génn pour voilà ma xamal leen nag ñi leen tey moom ku ñu may xaar duñ ma fa gis kenn du dégg ma wax ci ca comme joxe naa suma kàddu nii d'accord naa ci bañ ci duggee tamit man fa ma nekk ca tubaa ak ñañ fa nekkal di liggéey dañu def suñu point de presse que accompagné nañ président Idrissa Seck ci li mu def léegi nag loolu mu woo ci ñun ñëpp ñu ñëw jàppale ko ci dugg ci biir gouvernement bi mu bëggaat. Hmm. ñu demaat ba ci biir war a wëlbatikuwaat. génnaat génnaat jaar fa nga jaaroon di wax Macky la baax war faa jaaraat di Macky Sall bon. mais moom waxagul dara ah non attends xam nga non mais non non. non du dama gaaw aussi ñu ngi suivre l'actualité xam nga boo leen gisee séminaire boobu sax séminaire boobu li yàq séminaire bi dafa am lu ko waral. ñun am na lu ñu yëg avant ñuy ñëw ci séminaire bi. mooy am na lu nga xam ni eggaguñ ci wax ci ca dinañ ci wax buñ ci eggee ñun bi ñuy ñëw ci séminaire bi am na lu ñu yëg ko ñoom lu ñu naroon li tax defuñu ko ñun suñu taxawaay bokk na ci ca loolu du ñu ko d'accord tey duñu ñu ko d'accord ëllëg. mais mais mais Mouhamed yow li ñuy junj naan euh, euh, euh, waaw nii nangam xam nga comme li la Aïcha di wax moom mooy dëgg mooy li fi ne. te ñu koy déggandoo. Mm-hmm. mooy li mu waxagum. Mm-hmm. te ba fii ku nekk yaay interprété ku xam Idrissa Seck xam ni moom noonu lay waxee ak parabole ku ci nekk yaay interprété. Mhm. mais liy dëgg mooy yow aussi xamoo lan lay waxtaan ak président Macky Sall. Mhm. xamoo ci luñ jubu xamoo ba xam li muy def nii euh, ndax da ci réeroog ki nga xam ne moo jiite coalition bi ou xam nga loolu xama ko. kon mhm. est-ce que tamit du erreur ci yow soo jugee nii rek nga taxaw yow ak ña nga àndal ne kat ay na yow Idrissa du def lii parce que li ngay junj ñun du duñu ay kii li nga bëgg wax mooy ni séminaire bi la ko taxoon jug mooy ñëw mu déclarer candidature am ne day dem. loolu nga bëgg a wax boo ko waxul et tout junj bi loolu la parce que finalité bi yëpp mooy loolu. Mhm. léegi bu fekkee ni moom jug na pour def ko parce que avant mu koy def avant mu koy wax am na lu mu fàttali fàttali na diggam ak Abdoulaye Wade. li indi woon mu jaar ne mu jaar na le. xam nga su waxee loolu ci contexte bi ci ku am xel boo déggeek boo déggul am na lu la bugg a wax. am na lum la bëgg a wax ne la damaa jubóog moom ci lii bi mu ne ba gis muy wàcc yoon bi dama ko ne sëñ bi fii du yoon bi ak ni mu ko ne waxee et tout est que yéen fii parce que man foofu laa bëgg ñu taxaw ndax xam nga lan la déggoo président Macky Sall ndax xam nga ko parce que bu la umpoo tamit est-ce que li ngeen di def ni gaawtu leen. Hmm. ndax amul onction wu moom président Macky ci li muy def. boobaa xëy na yéen yéenay juum ci seen perception alors que moom lu mu wax mooy ni dellu leen seen base liggéey parce que yéen ñi nekk ci coalition benn bokk yaakaar bu fekkee ku ne liggéey na ku ne animé na ku ne jaay na carte ku ne recensé na xëy na bu ñu demee ba ca cappaandaw ga bañ ne Idrissa Seck lañ tànn te tànneef boobu bàyyi ko ci moom président Macky Sall boobaa nu ngeen di def est-ce que kon jotul li muy wax nii ne kat fexe leen ba nekk ci ligne parti bi ordre jour parti bi yow yaa ko déggul mais leeral nañu ko. wax naa ko léegi sax ci ci ci bi may wax ci euh, communiqué bi génn est que jàpp leen ni foofu ngeen war ne ba gis lu uuteeg loolu jàpp ne xëy na moom ci bàkkanu boppam la dem xëy na ngeen amee taxawaay bi et puis xeex bi aussi dafa am fu ngeen ko war a mën a xeexee am ngeen ay instance loolu tey ci seen biir nga wane yow seen ñàkk ànd ngeen xool parce que génn bi nii da ngeen di fragiliser euh, formation parti bi ci jamono joo xam te ne yéen a ngi jëm ci leneen parce que ànd bi nga ànd ak Idrissa bi mooy mu jot ci réew mi finalement su fekkee da nga ne man maa ngi ci parti réew mi mais du Idrissa buy falu man gisuma sa militantisme ci lan la wékku. n'est-ce pas n'est-ce pas suivre nga Idrissa ak euh, Thiès discours am non. waaye am na lu mu ci suivre oui. dégg nga li mu wax foofu. mooy li mu wax ci ban pàcc. ban pàcc bi mu wax ak président Macky Sall. waaw lu jëm ci. waa <laughs> euh, moom président. que bu mu ko naan nga muñ dégg liggéey bu mu liggéey bu mu ko yàq du déglu nga lim ci wax. Mhm. waaw. pour bañ a bañ a gën a guddal ci foofu bi ñu ñëwaatee tamit ci euh, soi-disant séminaire bi dégg nga li mu ci waxaat que Ablaye Wade bi ñu àndee man ak moom li ñu tàqale mooy affaire de troisième mandat bon kantaan nag li nga wax waxul li ñu tàqale mooy troisième bi dañu ànd am ah. lu ñu waxante woon maanaam ah. mooy boo defee ba jeexal boo defee ñaar ma def waaw et loolu sax rek foofu dañ fi war a taxaw quoi moom Ablaye moo koy jox réew mi wala sénégalais yi ñoo koy jox réew. mais justement mais dafa jaar. benn xam nga loolu erreur mënul passé loolu quoi. non mais non manque de respect. peut yaa amee extrait d'auditeur rek jël rek nangam mais xam nañu ni. benn du ko jox réew mi mais mën na ko jox légitimité. pour que mu représenté euh, parti ah mais mais bu représenté parti bi rek day jël réew mi. mais Abdoulaye Wade pourtant Abdoulaye Wade boobu muy wax noonu Abdoulaye Wade boobu muy wax noonu 2012 moo représenté parti bi ci ah. bi. li mu wax li nga wax ci nii. lu muy déggoo ak Macky Sall. loolu j'espère coalition bi moo koy devenir loolu bu ko coalition bi jiitalee amuñu ci problème mais mooy tabb mbër moo xam ne da ngay dem mais da ngay daanu. man loolu laa gis parce que moom moom moo doxalee noonu yéen ay journalistes ngeen yéen a ngi ci dëkk bi maa ngi ci dëkk bi. Hmm. yéen a ngi wax ak sénégalais di dégg li ñuy wax. xool leen rek tey jii ci tey très franchement bu fekkente ni dañu doon tànn cinq personnes yi gën a placé wu même bu dee président Macky Sall bokkul place am légitimité sénégalais voté la doo ci boole di sax. te loolu moom moo ko waral. non baromètre bi dañu xeex non dañu xeex. baromètre bi 2019 la quand même bu ñu wax présidentielle. non dañu dem 2019 moo ci mujj attention. dañu dem 2019 élection yi ñu xeex ba nga xamante ni moom président di Seck am vingt pour cent ñun département Mbacké. ñu liggéey ci liggéey bu am doole avec cent vingt neuf mille voix presque cent trente mille voix loolu ñu dajale woon mu xëy suba jël almetam costalti lépp tàkk ba indi défaite yi nga xamante ni fi ñu gañe woon yépp bi ñu booloo ak président Macky Sall sax dañ ko perte. ndax. li indi loolu mooy. mais da nga a masquer bi ñu duggee ci gouvernement bi. seen limite ngeen bëgg a masquer de Mbacké. parce que demoon nga ci législative yi. non non non non ah, ah, ah, na yooyu nga bëgg amul lu ko jiitu. du local yi moo jiitu législative yi local yi du moo jiitu législative yi. moom bureau de vote am centre de vote am Thiès commune Thiès département. du def dañoo perte. laajul Thiès commune. nee na laajul lépp dañ ko perte. laajul boobu man man ñëwaguma ku laajul. idi laajut de nee na ah, lu mu mës a laaj ci waa Thiès. waaw man jox nañ ko ko loolu xam nga te élection yu mu mës a demee. loolu jox nañ ko ko loolu moom miy laaj la moom miy laaj. membre ba j'ai comme l'impression d'entendre un membre de de de Benno Bokk Yaakaar APR buy wax. non jeune ne sens même pas que ne réew mi nga bokk parce que pour ma pour leeralaat waaw mais mais ci sa discours ci réew mi la dafa mel ni dañ la woo am luñ la luñ la luñ la lool parce que ah. yow ah. au lieu que wala dafa am luñ ko dig waaw waaw wala luñ la dig parce que au lieu que nga am dama yaakaar bu dig di am kenn mooy digee muy voilà bu ah. dig di am kenn hmm. mooy digee muy président Macky Sall est-ce que diggu la moom laay moom laa gis ci sa déglu rek mosuma koo gis am na ay émissaires. day yóbbante xoolal. Hmm. man man man c'est-à-dire ce discours loolu lay joxe man Sénégal moom ma politicien. yaa ngi dégg. Hmm. li ñuy wax politique politicien man nekkuma foofu. Hmm. man gisuma Macky Sall dégguma Macky Sall musuma dénk dara yoruma seen dara awma seen salaire. sequma ak ñoom dara. parti réew mi Idrissa Seck. non Idrissa Seck damaa yaakaar du xalaat quoi. Hmm. non bu doon nit kuy xalaat la man maak moom fi ñu jaar jaar ko ci parti bi bu ko nit ne kaay dàq Mohamed Cissé war naa xalaataat lu bare bare bare bare. ah waaye ah, mu amee yooyu tamit def si tax ñu dàq ko nag. Ah, waaw non bii mooy ki ko bëgg. waaw moom ah. ku ko bëgg te te am possibilité wax ak moom hmm. bu gisee danger di ñëw bul ko gisee danger di ñëw li dina ni la danger ngi nii hmm. ci sa kanam. bu la neexee nga affronté ko bu la neexee nga toog bokkut ak ñi nga xam ne dañuy reerandoo ak yow di ndékkeendoo ak yow Mohamed fi nga jaar ak moom mën na ko wax ak moom voilà au lieu que nga dem ci place la di woowu ku la ma ko est-ce que woo nga ko déjà rek pour wax la ci côté woo boobu ngeen di wax législatif yi ñu jógee man lañu investiroon ci parti réew mi ci coalition bi mhm. au niveau du département de Mbacké mhm. depuis avant list bi di génn ba bi mu génnee ba bi ñu dem ci élection yi maag Idriss Seck waxuñu téléphone woo naa ko du benn du ñaar du ñett. wuyuwul wuyuwul ndax lan di yaakaar ni man peut-être xëy na lu mu yaa man li ma yaakaar ni moom la yaakaar lu ko lu ma koy laaj pour mu jàppale ma ko ci élection yi la te man alhamdulilah rabil alamin li may wax ci télé laa koy waxee laaj leen waa département bu Mbacké pré campagne rek. def nañ ci lépp 30 million pré campagne. foo leen ko jëlee. ah mais attends yow tamit ñun ay liggéeykat lañ yow tamit soxna si ñun ne xaaruñu ba ñëw ci politique mu jox ñu ñuy doog a mën a dem di wàcc ci askan wi di liggéey dañu dem liggéey ba am suñu autonome bopp doog a ñëw di politique gis nga parti réew mi. Hmm. dama lay wax lii ci télé. maa ngi mi ngi may dégg daanaka. avant ñuy dugg ci gouvernement bi trois ans yooyu financièrement. Mm. mën naa wax ni quatre vingt pour cent man ak Déthié Fall ñoo ko doon def. ñii ngay dégg tey ñu yor làmmiñ bu rëy di wax yépp mm. ci tunnel yi lañ nekkoon ana woon. compte campagne Idy du amoon na fi. Mm-hmm. ceci le bu ci bu ci participer un million. direct lu bokkut suma département ñiy rëy borom làmmiñu rëy yi di wax ana ñu woon. d'accord léegi Idrissa Seck bu demee élection. 2019 grâce à moi léegi. léegi de non non non non xam nga lu tax ma non du lu ma neex ma wax ko de man dama bokk ci mbir doon ci kilifa dama lay dolli su ma ci amee kàddu hmm. kenn du ma wutal fu ma koy waxee dama lay dolli tuuti rek xam nga xam nga lan moo am solo mooy hmm. man lu may wax bu ci parti bi jaaree mooy njariñu parti bi mais nga waxee ko ci biir li ma koy doole fan ci biir dafa am lu ñu eh, woowee fan nga tuddee ci biir Mohamed dafa am essence bala nga ci mën a wax essence ba day dajaloo ah. depuis depuis deux mille dix neuf jusqu'à no jours parti réew mi ñetti yoon la fi daje. léegi man benn bi mooy bi ñuy bi ñuy bi ñuy dégradé Déthié yaa ngi dégg beneen bi ci topp mooy bi ñu wooy le 5 novembre pour ñu def recensement yi man ba ñuy dégradé Déthié Fall sax dama ni demoo parce que man ñàkk fayda yooyu du ci dem comprendre nga ah, beneen bi mooy barki dem léegi ban instance ngay waxee xam nga instance <laughs> bu buñ ciy wax mooy foo xam ne nit ñi dañ fay daje. nga mën faa joxe sa xalaat. du ma teree posé question bi de dama ne. waaw dinaa la tontu. non boo ma boo ma dégluwul doo ma tontu. waaw ah, non sànq ba maa ngi lay. non dama doon wax koy daw. parce xam nga fi ma jëm. dafa am lu ñuy woowee discipline de parti. tey dañ la dàq ci secrétariat national bi. mais suba mën nañ la dàq ci parti bi. parce que bu ñu ñëwee parti on attend à ce tout le monde. ñu ñu ñu bu ñu tënkee benn mbir discipline de parti da lay may nga ànd ci nga respecté ko tey Idrissa Seck yow xamoo fi mu jëm li nekk ci boppam yow xamoo ko discipline de parti mais tey jii bu fekkente ne ni commencé nga am benn benn comportement bi ñoom buñ la génnewee ci national bi suba xaaral ñu génne la ci parti bi. te bu boobaa yaa leen koy may. de parti nga njëkk wax. waaw. Idrissa Seck est-ce que mi ngi dox ci discipline parti bi. non waxuma Idrissa Seck. non mais attends Idrissa bi. waaw Idrissa bala ngay digle cangaay yow da ngay sangu ba pare. fu mu yéen du yéen yéen wax yéen a wax ni. bi muy dugg ci gouvernement bi yëgalu ko kenn loolu mooy discipline de parti. ah yëgle nag ndax yow yëg nga. waaw non man bi yëguñu. loolu mooy discipline de parti. discipline de parti mooy parti boo xam ne day toog 4 du dem. mais bu li ci Idrissa Seck nekkul ci yéen. non non. yéen a ko tànn def ko leader mais de parti mais c'est votre leader avant tout. non nekk leader bu parti bi taxut muy def lu ko neex. waxuñu loolu de. te deful lu ko neex def lu neex mooy def lu ko neex mooy li mu def ba pare. bëgg a wëlbatikuwaat di wut ay porte de sortie kenn du ko ko may. yow yaa ko ko dul may non non attends yaa fi toog. Eh, waa bi ñu ngi seetaan xam naa ne suba dañuy ñëw. déglul tuuti déglu ma déglul tuuti du yàgg. Ah. da nga gis lu bari dégg lu bari ci parti réew bi du ñoo ko waxandoo fii déglul tuuti gis nga parti réew mi moom xam nga luy seen jàmm fi ñu toll nii. Mm. dajalewaat seeni morceau jéem a resté ci biir coalition bi. présidentielle. présidentielle mais yow lu tax nga jàpp ne may ma ma ñëw may ma ma ñëw may ma ma ñëw. candidat bu ñu bu nga xam ne moom la coalition bi teg. Ah. parti réew mi ànd ci. bu ñu génnee 2024 Idrissa Seck mii tey jiite ko. nga xam ni wax na fi ñetti wax yoo xam ni ci mille 2022 bii lañ ko ci doon xaare ba ca njëkk mooy moo ne woon bis bu amee 63 ans dana génn ci politique Sénégal waaw déet déet non de may ma ma ñëw leeral na ko de may ma ma ñëw beneen ba ca topp mu ni bis bu ñàkkee Thiès bis bu demee élection Thiès ñu gàñe ko fa dana bàyyi 2019 moo gàñe de Thiès mu ni woon it 2022 lay bàyyi ñett yooyu yëpp suñu boroom nattoo ko yëpp daje ci menn at mi. léegi lim ko leeral yàlla du ku ñu yàlla du ku ñu jéem a nax. waay sëñ Mouhamed dafa am yoo xam ni. sëñ Mouhamed yaa yàlla moo koy lekk ah? non déglu ma rek xam nga yàlla mënoon na ko sax euh, nu mu tuddee ci euh, suturaal lépp bañ dajee ndoo ci benn at bi. mais suñu borom daf ko wonandoo ñett yëpp ci benn at bi won ko ni ko gis nga nit dangay ngay sincère ci sa démarche bàyyi njuuj njaaj. kon yow bu ñu la déggee Idrissa Seck du sa candidat. Idrissa Seck mënut a nekk non mooy suma leaderu parti. mais candidat man li ma gëm mooy candidat coalition bi moo koy devenir ku ñu mën di jiital coalition bi ku ñu mën di jiital man de danaa ci def la ma man nekk. non ku ne ci yow mais mais ngeen mu mbër boo xam ne leer na la mi ngi dem ci làmb ji dañ koy dóor mu daanu moom. beneen leader yokkal la yow. sa leader ah, waaw mais ba d'accord ah su ma amoon beneen leader yokkal la di. waaw Mouhamed dafa rayu leader bi kese da nga ray euh, parti bi da nga ko. déet pa déet parti bi xam nga lan man li may koy ñaan moom président <laughs> Idrissa Seck xam nga parti réew mi dafa bari ay doom yu nekk ci biti di taxawal. pas taxawal mais ay doom yu nekk ci biti. Hmm. président Idrissa Seck c'est-à-dire man li ma doon xaar. Hmm. 2019 bi bi ñu génnee mu ne tekk ju yàgg jooju yëpp. Hmm. avant dara di xew man la ma yaakaaroon. Mhm. dafa doon dajale njabootam. commencé ci Déthié Fall Abdourahmane Diouf ba dara Badara Gadiaga Thierno Bocoum ñëpp ñu toog ñëw toog waxtaan mu xamal ni ñëw ne dem naa 2007 yàlla nanguwut 2012 yàlla nanguwut 2019 yàlla nanguwut léegi nag yéen ñii nga xamante ni seen génération bii jot na. pour ngeen dëggal seen bopp doon dara kaay leen ñu dem congrès bu nga xam ne man duma ci bokk ngeen xool ki ngeen wóolu gën koo yaakaar ne bu ñu ko denkee parti bi dana ko doxal ngeen jiital ko bu ngeen paree ngeen tàllal ma ñaanal leen. moom mu bàyyi. moom mu bàyyi xam nga mu rafetoon mooy nga fexe ba ci biir parti bi nga amee position bi taxaw même bu fekkee wax nga ni ma ni xam nga xam nga position boo ko ci am pour man koo wax parti ba day daje xam nga parti boo xam ne waa parti boo xam ne du ñu daje du ñu waxtaan maanaam waa ji daal mooy toog ba am lu mu bëgg a wax rek woote ñëpp ñëw daje mu wax lu ko neex xam loolu déjà euh, ñun suñu génération bi li ñu war a gën a njëkk a gën a xeex ci Sénégal. Hmm. dañ koo bàyyi di xeex yeneen. li ci njëkk mooy nit ku créer parti surtout surtout pour di ci dund maanaam def ko benn fonds de commerce boo xamante ni da nga koy xuuxalaate. pour di ko dundee jeunesse bi loolu lañu war a njëkk a xeex parce que ñoom ñooy may doole yenn homme politique yi nga xamante ni ñoom seen bopp sax fa ñu toog leer na leen ni seen biir kër bu ñu fa demoon ci ay élection ñëpp duñu leen voteel <laughs> mais yow comprendre nga yi nga yooyu xam nañ ñu nekk ci dëkk boo xam ne presque 17 millions de d' habitants ñaata mais tey kan moo la mën a wax ñaata partie moo nekk Sénégal amul léegi te bu ñuy dem élection lii dem lépp du ma diis te loolu dañ ko war a waxtaanee. léegi. te loolu moo fi bari moo tax ma ne leen ñun man daal li may ñaan di ko ñaan président Idriss Seck. mooy mu dég mu déglu ma déglu. dégloo xool ma a dégloo ca séminaire bi séminaire bi am nga possibilité. séminaire bi séminaire bi. waaw Idrissa bi mu ñëwee ba def discours ba dem. Euh, ba Diattara ak ñu mu àndal wéyal nañu. yow foofu amoon nga occasion. pour wax ak kii. wax mais nga wax ak ña daje ca séminaire ba. mais man. parce que yaa ngi woon ci secrétariat national bi ñooñu fa nekk wax leen ko sànni samay. au moins dina la protéger yow. wax loolu wax sànni samay wax la xam nga lu tax samay wax la. Idriss Seck maa jaar wax naa ko sumay xalaat ba ci dugg ci gouvernement bi waxoon naa ko samay xalaat. mu ne la loo loolu doon sa xalaat la ma waxoon mooy. duñ mas a dugg ci gouvernement bi wallaay la nga sim billaahi wallahi maa ko woote mu xëy def ko covid la et ban ko ku waxtaane quinze mois douze mois yi yépp mi ngi waxtaan booba kenn xalaatul covid covid bi c'est eh, trois mois waxtaan yooyu yow koy dëggal yow ko ñeneen na ko wax de ah déet moo ko waxal boppam Idrissa Seck moo ni waxtaan naa quinze mois <laughs> loolu du samay wax waxam ay waxam la léegi euh, kooku nag dañuy terminer bu bëggee ñëwaat yow de da a lem say bagages yow <laughs> man réew mi réew mi réew mi yow boo fa dematee sax réew réew mi mi man du ma ci slip caaye laa ci du ma génn fenn du ma dem fenn ci biir sec ci boppam mënu maa génne parti bi. ah bon ah, dëkk droit la ñu nekk tamit. foo teg loolu. non li mu li mu réew mi ñu nekk. Ah. am na yoon wala amul yoon. ah kay am yoon. léegi nag moom bu bu ma ci bëggee génne. Hmm. dinañ dem fu mbaxana doone benn. d'accord léegi. lu mu ci bañul bañu ma ko. ma déclaré la guerre mais on s'il te déclare la guerre il aura. non il a déjà commencé. ok ah, yow yaa njëkk a commencé. non man dama ko wax dëgg warul commencé. di tàggat foofu tàggat def ay moom bi muy wax Ablaye Wade dëgg bureau politique la ko waxee. ah bureau politique. yow ci plateau yi nga ñun nag amuñu bureau politique. suñ ko amoon ma waxee ko fa. d'accord léegi su ma la déggee bu baax su ma la déggee bu baax ñu ngi jëm ci ay échéances 2024 si toutefois je dis bien Euh, seen parti investir ki nga xamante ni moo di sa Seck yow sa àqulaay taala da nga jàpp ni bu demee day daanu du am dara. parrainage dañ ñuy jàpp <laughs> duñ dem élection du moo waxal boppam ngeen di ko dégg. Mhm. mu ni le cinq novembre laa leen waxoon ngeen dem def ay recensement. boobaag léegi yow amagoo mille mille personnes. mais loolu ça ne veut rien bu jugee quand no bul taxaw parce que tey am nga. am nga xëy na lu la metti xanaa da ngaa fàtte Idriss Seck local yi dañ ko doon yuuxoo ci centre de vote wala da ngaa fàtte loolu dama defal naa dama la jox ñaar dama la jox ñaar la jox ñaar nga xool non xoolal man man ma damay observer la vie politique te damay damay koy topp uh-huh. dama lay jox ñaar nga bàyyi ko xel bi ci njëkk 2019 la ko may 20 pour cent yi uh-huh. bul fàtte ne attention bi mu jugee Ousmane Sonko mi ngi foon mais bëri na ci ay ay coalition ak ay parti yoo xamante ne moom la ñu joxoñ dem ànd ak moom bokk na ci li ko may 20 pour cent yi dégg ma ne xëy na li indi fracture ba yuuxu boobu noonu ca Thiès mooy ñi comprendre pourquoi choix am en 2020 mu dem wuyu le président Macky Sall te lim ko laytaaye mooy mbiru Covid ak yooyu doyul ñenn ñi doyul ñenn ñi xëy na mooy justifier le fait que mu am yi am ca Thiès te boobu wax naa la ni diggante bi mu duggee ci président Macky Sall ba léegi amul fenn fu mu laajee moom personnellement. xëy na coalition bi mu bokk benn bokk yaakaar ak réew mi responsable yi fa nekk au niveau local ñooy laaj ñii au niveau ci législatif yi ñeneen ñi laaj xëy na mu demee nu mu demee mais élection yooyu di nga d'accord ak man bokkut ak élection présidentielle. Mm. un Idrissa Seck bu jugee mën a joxe ay firnde moo xam ni ñu gëm a ngi ñàkk gëm man nekkuma foofu parce que sénégalais ñooy tànn. Mm-hmm. te tànneef boobu selon ni ñuy déggee ak ni ñuy xalaatee la lépp mën na basculer fii trois mois. on ne sait jamais mais dama bëgg wax ni Idrissa Seck bu taxee comme taxawaay bi. muy wax askan wi ko dégg muy leeral yenn yi mu jàpp ne xoolal lii moo ci dëggam mais euh, kenn xamul ah kàddoom yooyu muy wax am na ñu koy gëm xëy na am na ñoo xamante ne am na nu ñu ko jàppee woon ñu ko mu wax mais bu ñu waxee ñu peser le pour et le contre mun nañoo ànd ak moom comme mun nañoo ñàkk ba ja ànd ak moom loolu laa naan est-ce que pourquoi yow nga taxaw rek am rek désespoir boobu noonu parce que nee nga nit ñaa ngi leen di déglu yaa ngi dem parce que yow yaa dem élection ca Mbàkke ñu dóor la. Mm. yow doo Idrissa Seck. un Idrissa Seck bu taxee di wax la preuve mooy ni benn rek la wax ca Thiès te conseil présidentiel la boo boo xam te ne pour développer la région de Thiès on a annoncé mille cinq milliards mais ci journaux yi li ñu gën a dégg mooy Idrissa Seck bu ne ko na am xolu muñ. Euh, critique bu ko nangu attention te bul xam un euh, Idrissa Seck boobu taxawaayam ak poigne boobu noonu su fekkee tey waa benn bokk yaakaar taxaw nañ ko ne yow yaay suñu mbër lu mën a defar yéen tey seen liggéey moo waroon doon nan la def bu fekkee tànn nañ Idrissa Seck ci coalition bi mhm. peut mu créer ay ñooñu nan la ñuy def ba recensement yi yow Mbàkke nga indi ci taxawaay keneen indi ci taxawaay bu ñu paree nag bu ñu paree nag ngeen jàkkaarloog seen bër ne ko lii lañ leen di yëbbee ci affaire recensement yi est-ce que yaa ngi recensé eh, non yónnee na ci man ñoom ñoo recensé waxuma la waxuma la <laughs> ah. waxuma la kii dafa yónni nit mu woo ma moom Idrissa Seck As kër Gueye moom woo téléphone ni ma dangaa bokk ci ñi président wax naale woo pour ngeen yëngatu ci recensement yi ndax am na ci département yoo xam ne am na fa ay leaders yu fa ne ñoo ëpp doole coordinateurs yi ca yow ci ñooñu nga bokk ma ne ko dama bëgg nag nee nga Idrissa Seck moo la yónni mun ma waaw ma ne ko nga jël sa téléphone woo ma li ma lay tontu na nga fexe ba nanga ko ko waxaat hmm. ba mu leer nee ko Mouhamed Cissé nee na tuuram donc ku ko ci dugal tooñ nga ko ci recensement ci recensement yi recensé wu ma personne ñi ma àndal kenn kuy wàcc ci terrain bi di recensé personne du am ca moom Idrissa Seck tooguñu waxtaane parti bi recensement dafa am lu koy jiitu yow mënuloo jóge ci ay élection 2019 local jaar fi législatif jaar fi loolu yëpp téere wuñ ci benn bilan waxtaane wuñ ci dara nga tëb naan nit ñi ay recensement xam nga loolu c'est un manque de respect total man nekkuma foofu man fi ma nekk mooy bu ñuy ànd ànd bi day nekk àndu nawle yaa ngi dégg. ok loolu moo waral kay yi muy wax ni man doxuma ci. ca moom nu muy doxalee ak ñun ni bu ko Abdoulaye Wade defoon. après franchement après présidentielle 2019 amoon na benn daje boo xam ci ci ci ci élection yi la woon présidentielle. wala yow boobu fekkee ko. lan après lan. après 2019. ban daje. mooy 2019 ré réew mi def benn daje pour évaluer. déggoo ma de. élection yi après 2019 xam nga kañ lañ dajawaat. waaw. bi ñuy dàq de Fall. non xoolaatal sa carnet. ci diggante bi yaakaar naa am merci beaucoup merci beaucoup jaajëfal nañ la ñu bàyyi la bu dee am nga loo bëgg a sànni ci ay kàddu rek ñu tëjee ci loolu. waa kàddu yu ma ci yi may ci mujjee euh, wax daal mooy euh, loolu moom président Macky Sall laa koy wax. Ah. ndax dëkk ba ma jógee di Touba. fan yi yàlla dafa dogal marché ba ñuy wax marché Ocass ñu yaatalaat mbedd yi. Mhm. ca la ëpp ca ña fa nekkoon di ay ndaw di sama. di sama suma suma génération ñu jëlee leen fa ci ñu ci bari xamuñu fu ñu jëm président Macky Sall loolu bu mu ci déglu kenn na ko jëlal loxoom lijjanti ko ñooñu noonu ñu wut fu ñu leen teg. ndax fa ñu nekkoon fa la ñuy daane seen doole fa la ñuy yor seen njaboot fa la ñuy suturaloo. te it mu tombeek loo xamit ni nit mënu koo bañ dañuy yaatalaat mbedd yi ndax ku ne xamoon na na marché Ocass xaw a demee lakk yi di tegaloo di tegaloo loolu c'est normal ñu yaatalaat ko mais buñ ñu dañ koy yaatal rek ba ñooñu ñu sànni leen ci mbedd mi mm. loolu moom damay ñaan président Macky Sall na ko jël ak loxoom lijjanti ko ñooñu ñi ñu ci war a jàppale ñu jàppale leen ñi ñu ci war a woon yoon yu ñu war a jaar ba mën a nekk ci ay position yu baax waaw waaw mais dafa am loo xam ni xalif bi moom def na li ko ah, war lépp da ci am xam ne njiitu réew mi la war dafa am loo xam ne njiitu réew mi la wara jërëjëf marché Ocass du lu ndaw Touba du dëkk bu ndaw loolu daal laay tëjee ak euh, nag di ñaan yàlla gën a def jàmm ci senegal jàmm ah, ci réew mi ci réew mi yàlla def jàmm ci réew mi parti réew réewum Sénégal non parti réew mi jàmm rek moo fa am. non réew mi laa wax de Sénégal non parti réew mi sama papa Idrissa Seck maa ngi koy ñaanal jàmm ak. tawféex ak xéewal. ak merci beaucoup Mouhamed Cissé jaajëfal nañ la. <laughs> merci beaucoup baax a baax. ah euh, bi ngay interpeller léegi le président Macky Sall la ci sama xel a def la ci sama xel dem question bi nag jarul développer wii ou non rek lañu ci soxla sa à dire tey bu Idrissa sekk jëlee yoonu boppam si toutefois le président Macky Sall wala ndax di nga ànd ak moom. dina ànd ak kan. président. ban président. Macky Sall bu Idrissa jëlee yoonam. man coalition bi ku mu tànn kooku lay àndal. d'accord ah bu tànnoon yaawu jaal sax ma topp ci. merci beaucoup Alassane avec ta complicité léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi ayca.